Abdou Samad Diouf ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay. yow yaay coordonnateur mouvement zéro inondation déjà benn euh, taw hmm. taw bu njëkk fii ci ndakaaru euh, déjà dégâts yi bëri na inondation yi euh, fii ci ndakaaru ak quartier yu bëri yi nekk ci banlieue bi ñu ngi ci biir ndox yow ban jàngat nga am ci taw bu njëkk bi ak inondation yi nga xam ne moom la jur fii ci Sénégal. waaw d'accord maa ngi leen di nuyu d'abord. di leen euh, ziare bu baax di rafetlu aussi liggéey bu am solo bi ngeen di liggéey di leen ci jaajëfal parce que gis nañ tamit euh, taxawaay bi ngeen am ci inondation donc loolu mu nekk loo xam ne aussi ñu leen ciy jaajëfal euh, comme ni nga ko waxee rek gis nga démb xew benn taw dëkk bi yëpp situation bi ni mu mel ñëpp gisandoor ko donc mu nekk loo xam ne situation bu métti la pour askan bi surtout li nga xam ne ñu ngi koy dund mu nekk loo xam ne aussi jafe-jafe yu métti parce que ñëpp xam nañ ne fi ñu toll tey actuellement Euh, am na ñoo xam ne sax mën naa wax ne euh, douze mois sur douze ci ndox mi la ñuy nekk parce que li ko waral mooy nappe phréatique bi ñëpp xam nañ ne dafa saturé te am na ay zone yoo xam ne bu dee foofu nga dëkk euh, situation bi moom gis nga bu xiinee sax benn taw bu ko tawee rek gis na ko da am problème mm. te boo xoolee démb taw bi nga li mu taw démb daanaka bëri na ay kër yu bëri yoo xam ne actuellement ñu ngi ci biir ndox mi ak ay famille donc loolu nag mu nekk ah yaakaar naa ne tamit lu métti la ñun ñi nga xam ne nag dañu nekk ay acteurs di xeex du jëm ci wàllu inondation depuis ay at lu ji ëpp fukki at ak juróom ànd ci ak nguuru Sénégal di fexe naka la ñuy def pour assister population parce que ñun dañu jàpp ne lii ñuy def ñun tey daf ñu war ci suñu réew parce que c'est un combat purement citoyen ñu jàpp ne ab jéye la bu ñëw ci réew mi nekk loo xam ne suñu kaw la dal ñun ñëpp du état bi moom moo ko moo moo fi indi taw bi du askan bi moom moo indi taw bi mais lu jóge ci suñu borom la donc nag bu yàlla defee nag loolu am la nga xam ne moom moo ko war a saafara day jóge ci ñun ñëpp état bi la ko war mu def ko askan bi aussi la ko war mu def ko ñun nag la nga xam ne ci suñu euh, côté lañ ta mën ñu ngi koy def mooy assister population bi fexe ba nekk seen i wét saa yu nekkee ci ay jafe la ñu ca mën selon si suñuy moyen si suñu doole ñu ànd ci ak ñoom jàppale leen ci ba ñu mën a am jàmm donc nag des nag mooy bu fekkee suñu kaddu dañ ko war yëkkati ñu yëkkati di joxe ay orientation di alerte aussi tamit di assister je pense que loolu mooy rôle bi nga xam ne tey ñun ñu ngi koy joué parce que boo xoolee yàggul am na benn plateforme bu ñu taxawal euh, mu nekk plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations mu am ay maires yu ci bokk am ay OCB am ay conseillers municipaux am ay experts ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci lu jëm ci wàllu assainissement donc ñu ñooñu ñoo regroupé autour du table créer benn plateforme pour xool ensemble jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi ko dund ci des inondations donc loolu nag def nañ ci récemment benn atelier bu mag a mag boo xam ne tey am na service yu état yoo xam ne teewoon nañu fa ñu weccee xalaat échanger xool yu ñëpp suñu biir kenn ku nekk la nga jàpp ni lii kat sax xalaat bu rafet boo ko indee danañu am bunt pour wan a saafara li nga xam ne mooy problème inondation mm-hmm. parce que loolu li may wax rek état bi mënul xeex inondation tant que impliqué wul li nga xam ne moom mooy les acteurs communautaires de base parce que mbir mi fi mu toll ñoom la ñu xam ñoom ñi koy dund yaakaar naa kenn gënu leen ko mën a xam dafay gën a baax ñu gën leen a impliqué impliqué leen ci li nga xam ne moom mooy le combat parce que tamit li ñuy def ñun mënoon nañu ci sax mën naa wax ne bañ a fekk ndax ñun dañuy jàpp ne nekkul responsabilité boo xam ne ci suñu kaw rek la war a tegu mais dañuy jàpp ne li ñuy def dañ koy defal suñu réew te li tubaab di wax ne celui qui ne s'active pas au nekk ay citoyen ba nekk ay citoyen dem nag bu ñu gisee suñu réew gis suñu askan gis suñuy njaboot nekk ci benn situation bu doy waar di loo xam ne métti na parce que tey su may wax inondation nit ñi rek danañ jàpp rek sax ndox kese mais inondation boo ko bëggee tënk ci li mu mën a yàq li muy yàq ci réew mi ci wàllu économie ci wàllu sanit sante loolu bari na parce que boo xoolee démb taw bi démb rek am na ñu bari xëyuñu ñii li tax xëyuñu parce que seen i kër ndox mi nangu na ko mënuñu xëy am na ñoo xam ne tey xëy na ñii ci seen i place fa ñu war a jaayee ndox mi nangu na ko ndax munuñu am fuñ jaar wala tali ndox mi nangu na ko ba oto yi mënuñ daw moo xam muy taximan wala muy transporteur yi ak yu mel noonu yooyu yëpp nekk ay problème yoo xam ne boo ko tënkee dafa nekk loo xam ne ay jafe-jafe la ci wàllu inondation nga ñëw ci côté sante nga xool ñi nga xam ne dañoo dëkk ci biir ndox Euh, ndox mi jaxasoo ak matière fécale bi loolu mën na propager des maladie mën na créer sax épidémie ci biir réew mi loolu yëpp est-ce que lan la ci taxawaay bi nga xam ne ministère de la santé war na ko def muy direction de la prévention ban taxawaay lañ ci am yooyu yëpp dafa nekk ay loo xam ne ñun ci la ñuy maanaam di alerter parfois pour que autorités yi xam jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund comme ni ma ko waxee sànq am na boroom xam-xam bu ko daan wax nee na ki bu fekkee da nga bëgg a dimbale da nga koy laaj xalaatam bu nekk pare nga ko pour jàppale bu boobaa moom dana xam lan la lay mën a tontu ak lan lay mën a kii pour que ngeen mën am buntu pour mun a saafarawu et je pense que loolu noonu tey ñun ci la ñu nekk tey boo ñëwee tey ci situation bi xew démb foo dem ci biir euh, Dakar jafe-jafe yi ñu nga fa mbedd yi amul fu oto jaar nga dem tey fu mel ni Dalifort cité Belvédère léegi rek ñu ngi signalé que nekk canal bi fa nekk à ciel ouvert dañ ko war a curé ONAS war na koo def xaw ma ban ban kii moo ko a def donc loolu nekk ay nga dem jàmmagal si Kambaaw nga xool piis deux bi Pikine irrégulier sud ñu ngi ko waroon def benn bassin boo xam ne depuis juróomi at ba léegi bassin boobu mënul pare mu nekk benn bassin boo xam ne BK 3 1 la war a doon nekk environ quatre hectares le financement a été bouclé financé par l'AFD les soixante quinze pour cent cinq pour cent pour l'État du Sénégal mais jusqu'à présent ñun mënuñu comprendre lan moo bloqué li nga xam ne mooy travaux yooyu mhm. loolu yëpp nekk nag loo xam ne ñun dañu jàpp ne dañ ko war a wax pour kilifa réew mi askan bi kam am na ci jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund ñu ngi nekk ci jafe-jafe yu métti parce que ñun li ñuy def li ñu ci jublu mooy loo xam ne tey ñun ñëpp bu saafara woo ñun ñëpp dañuy am jàmm parce que tey bu inondation yi indee problème ci réew mi état du am jàmm ñun askan bi ñu am jàmm kon day baax bu dëgg jotee ñu wax ko pour saafara mun a am parce que tey bu fekkee ne dañoo war a toog waruñu waxante dëgg te tey am na ñoo xam ne tey li ñuy dund actuellement ci si situation inondation métti na am na ay borom kër yoo xam ne amuñu lu ñu fayee location ndax location cher na ci réew mi tey ñu ngi ci ay jafe yu métti ñooñu tey est ce que bu ndox nangu waatee seen kër amuñu fu ñu dem situation boobu nga koy dund lan moo ko gën a métti ci adduna loolu moo tax ñun ñuy ñaan wuur gi di ko ñaan njiitu réew mi moom mi nga xam ne bi mu ñëwee ci boppu réew mi xamoon na jafe-jafe inondation ba mu tax mu créé benn programme teg ko mu nekk programme décennal de lutte contre les inondations jël alal bu baree baree bari def ko ci inondation loolu lan la ci jubluwoon ndax yërëm askan bi jàppale askan bi mais boo xoolee la ñu dépensé ci inondation la ñu ta def na koppar ba bëree ak fa mu toll te ba léegi problème bi mënul réglé wu à cent pour cent loolu moo war a tax nag président taxaw changé doxalin xool lan moo waral autant d' argent yi nga xam ne def nañ ko ci inondation te jusqu'à présent loolu mënul saafarawu mhm. lan moo ko waral donc loolu dafa nekk loo xam ne tey ñun dañ ko ci woo parce que bu fekkee da jël nag euh, moom du technicien technicien yi ñoo ko mën a wax ne ko lii moo mën a régler le problème lii moo ko mën a def ci koppar mu yëkkati koppar yi jox leen bu fekkee nag ne loolu dañu gis ne tey lañu ñu yaakaaroon ak lañ ca namoon amuñu ko day baax nag moom aussi mu def li ñuy wax évaluation parce que am na fi benn mission parlementaire boo xam ne demoon na sur le terrain ñëw wax ci situation mais man dama yàgg wax ne mission boobu loolu mu def man doyuma parce que la vraie réalité actuellement li nga xam ne moo xew ci terrain bi du liggéeyu juróomi fan wala juróom liggéeyu fukki fan moom mooy tax nga ne am la bonne information. d'accord te loo ko def mhm. te jaarloo ci acteurs yi. waaw monsieur Diouf yow euh, yaa jiite mouvement bu ñu duppee zéro inondation euh, yéen euh, lan mooy seen rôle ngir xeex inondation yi. waaw xam nga suñu rôle mooy li ma la wax. suñu rôle mooy di alerter. Mhm. di joxe ay orientation ba pare di assister loolu mooy suñu rôle parce que tey inondation comme ni ma la ko ku ci nekk dafa am pàcc boo war a liggéeyee ndey les gros moyens c'est moo war a defar ay bassin moo war a defar euh, ay canalisation loolu état la war mais kan moo war a assister population bi mooy askan bi mooy acteurs yi looloo waral ñu jàpp ne tey bi situation inondation amee ci réew mi ñu jàppal li la li li ci war état ñun wàccuñu ñu ne kon nag lii mbiru ñëpp la comme li ñuy wax lépp ñëpp lenn ku nekk mang ca kon kenn ku nekk ci ñun dafa war a jàpp ne la responsabilité elle est partagée kon kenn amul sañ-sañu taxaw ne man inondation man sama yoon nekku ci soo ci amul kàddu war na ci mën a am taxawaay. Mhm. looloo waral ñun ci suñu bopp bëgg bi ñu bëgg suñu réew. ñu jàpp ne tey lii nekkul affaire état kese ndax l' état dañoo jël ay responsabilité dénk ko ay nit mais du tax rek bu dara amee ñu ñu ñu ñu écarter li nga xam ne moom mooy suñu kii dal dina yeena ñun dañu jàpp ne ñu nit am nañ ci responsabilité responsabilité boobu ñu ci am moo tax tey ñu taxawal lii ñu taxawal mooy plateforme la zéro inondation pour jéem di joxe suñu xalaat di joxe tamit suñu doole li ñu mën ñu bokk ko ànd ci ak état pour mën a régler problème inondation et je pense que loolu moo tax ma ne ñun taxawaay bi ñu am ci inondation suñ fi nekkutoon amuñu ko kon heure bi situation bi dina gën a catastrophique mm-hmm. parce que au moment que état di ñëw di intervenir dana fekk ñun lañ war a def def nañ ko mooy assister mm-hmm. bu dee fekk dañuy jël suñuy pic xàll ay yoon danañ ko def au moins pour euh, soulager population bi bu fekkee dafa laaj ñu uti suñuy motopompe parce que am na ay ay ay famille yoo xam ne ak ay euh, population bi des fois am ñu cotiser seen biir. ay justement justement yéen ci yan gox ngeen di gën di intervenir ak lu ko waral. non ñun moom partout dans la région de Dakar. Hmm. partout dans la région de Dakar. département fépp am inondation. fépp ko am inondation mi ñun dañ fay intervenir parce que fu nekk la ñu am répondant dans la région de Dakar tey muy Kër Massar muy euh, département Pikine muy département Guédiawaye fu nekk la intervenir parce que man ku xam xam ma ci inondation parce que fii la ma lu bari fekk de 2005 jusqu'à nos jours maa ngi liggéey ak état bu Sénégal di liggéey ak euh, euh, les sapeurs pompiers ndax la ko waral mooy li ma la wax rek sànq amul fenn koo xam ne tey inondation am na ci dëkk bi te ñun duñu fa dem ba xam lu fa xew ba an ànd ci ak suñuy ndaw la ñu ca war a def ànd ci am nguur bi ñu ànd ci ak moom donc loolu moom lu leer la te lu loo xam ne tamit lu ñëpp xam la tey li ma la ko waxee sànq moo xam département Pikine yëpp fu ne am nañ fa répondant Kër Massar aussi noonu ak feneen ak feneen. donc loolu mm-hmm. moom mooy li nga xam ne zéro inondation ak la plateforme des acteurs ñu ngi ci loolu pour ànd ci ak askan bi di gunge état bi. d' accord Abdou Samad Diouf bëri na tey milliards yi nga xam ne état bi xëpp na ko ngir xeex inondation yi teewul at bu jot situation bi day mel ni day gën di piir gis nañ Kër Massar jàmm gën ak yeneen i gox yi nga xam ne ñu ngi ci biir ndox mi euh, lan moo expliqué lajjite état boobu. tamit euh, lajjite am na à cent pour cent mais mën naa wax ne am na lu des parce que tamit lu nit mën di wax te xam inondation démb ak barki démb na nga nangu ne état def na ay jéego parce que tey ñun ñi nga xam ne dañoo fekkee démb dañu war a am courage bu dëgg amee ñu wax ko ñu gisee loo xam ne safaan bala tamit ñu wax ko rek te yàlla rek a tax tey boo ñëwee dëkk bu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw commune bu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw ku fa demoon ci at yu wees dem fu mel ni Gounass dem fu mel ni même ginnaaw raay da nga xam ne la fa nekkoon am na lu bari bari lu wàññeeku te loolu aussi tamit ay effort la yoo xam ne état moom moo ko def mais li ñu jàpp rek tamit dañu jàpp ne xëy na la ñu wax ne moom lañ dépensé ci alal ñun jàpp nañ ne xëy na su fekkoon ne yoon ba mu war a jaar jaar na fa ñun jàpp nañ ne tey lii ñuy dund maanaam bu jeexul à cent pour cent au moins danañ am lu mu bon bon quatre vingt dix pour cent de de de de résultat parce que boo xoolee taux d' exécution bi nga xam ne moom la ñu wax sur les sept cent soixante six milliards presque soixante six virgule six pour cent man dama d' accord ci loolu yàgg naa ko wax parce que on attendait à ce que parce que li ëpp ci xaalis bi dépensé nañ ko donc bu fekkee ne la ëpp ci xaalis bi dépensé nañ ko kon résultat bi war nañ am quatre vingt jëm kaw pour cent mais bu ñu amee soixante six pour cent te dépensé la ëpp ca xaalis bi dañu gi ne am na foo xam ne dafa sooxe loolu nag sooxe ci loolu la ñuy wax parce que li xew kenn ku ci nekk ci ñun da ci am responsabilité pour wax ci. loolu moom moo tax ñun ñu yëkkati suñu kàddu di wax te li ñuy seq ñun ñëpp alalu réew mi la te alalu réew mi kenn ku ci nekk da am droit soo gisee loo xam ne tat lëmal na sa xel nga posé wu la question ki nga xam ne moom moo yor responsabilité réew mi di président de la république la ca war mu def ko parce que moom la mu man wax naa ko sànq du technicien dañ koy wax ne ko lii la moo mën a saafara mbir mi mu indi ay koppar jox leen su fekkee nag ne tey loolu saafarawul moom it dafa war a jëlaat ay responsabilité am auditer loolu xool lan mooy jafe-jafe ñu seet naka lañ koy mën a saafara maa yaakaar naa loolu moo ëpp solo tey fi ñu nekk donc loolu aussi tamit comme ni nga ko waxee am na ay zone yoo xam ne très franchement état def na fa ay efforts yu mais am na ay zone yoo xam ne wax dëgg moo neex yàlla ñu ngi ci ay jafe-jafe te gëm naa ne aussi tamit war na ñoo mun a fexe def lu ñu mën pour zone yooyu aussi génn ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund tey dëgg la Abdou Samad Diouf tey euh, lan mooy solution bi lan nga jàpp ni mooy solution bi euh, ngir euh, inondation dañ fi completement fii ci Sénégal waaw xam nga inondation mu dañ ci Sénégal war na mën a nekk ne saa yu jafe-jafe problème amee solution war na mën a am solution ba nag day war tey kenn ñu ñëpp ñu toog da li ñuy wax loolu président la war mu tey mu oo bépp koo xam ne doomu réew mi nga te sa xam-xam màcc ci wàllu inondation moo xam na nekk société civile moo xam na nekk feneen ñu toog autour du table waxtaanee waat li problème inondation parce que programme décennal bi daanaka jeex na tey ñu ngi xalaat tegaat beneen programme décennal loolu noonu na balaa nga cee jublu est toog waxtaanaat ndax dañuy wax ne waxtaan la tudd mais boo waxee tànn ba pare door a waxtaaj te loolu nag dafa war tey ci fi ñu toll ci inondation parce que lii askan bi du dafa métti solution bi nag comme ni nga ko waxee lenn kese la parce que fi nit ñi dëkk am na ay zone yoo xam ne maanaam zone ndox la nappe phréatique bi moom remonté na lenn moo ci nekk Sénégal amul problème espace fii région de Dakar boo fi génnee am na ay zones yu bari yoo xam ne war nañ mën a jëlee population bi yóbbu leen foofu noonu déloger leen yóbbu leen foofu noonu déplacer leen fa et loolu soo ko defee da gën a désencombrer li nga xam ne mooy dëkk bi di nga am ay espace yoo xam ne li nga bëgg a liggéey defar ay canalisation defar ay bassin de versant ay bassin de rétention dana yomb ci li nga xam ne mooy état bi loolu nag lenn rek moo ko war a mën a saafara mooy li ma la wax rabattement de la nappe muy bu forage de Thiaroye yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne tey war nañ ko saytuwaat fexe ba daal ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci biir ndox mi ñu ne leen donnet génne leen fi ñu nekk comme na nañu yóbboo ña nga xam ne ñoo nekk tawféex ak ña nekk jaxaay mais nag buñ leen fa jëlee fa ñu nekk fañ leen war a yóbbu na fexe mu ànd ak des mesures d'accompagnement mesures d'accompagnement yi lan ak lan la mooy nañu fexe ba fa ñuy dëkk na am courant na am ndox na am ay école na am fu ñu fajoo parce que loolu mooy tax ëllëg koo ne jógal mu war a jóg mais bu fekkee da nga defar ay logement yu bees ña ngi koy yóbbu am ñoo xam ne fa ñu dëkk amul ndox comme nañ ko defee feneen te ñu xam ci dara donc loolu nekkul loo xam ne lu baax la li nga xam ne daal la ñu jàpp ne mooy solutionné mbir mi du lenn ñi nga xam ne dañoo dëkk ci ndox ñi nga xam ne ay places yu inondé la des zones non édificantes yi ñu jëlee leen foofu yóbbu leen feneen foofu bu boobaa la ca état def bëgg a def dana ko def parce que état lu ko lu ko të yaakaar naa bariwul parce que lépp état moom moo ko yor donc loolu daal la ñu gëm ne loolu war na mën a nekk mais loolu aussi pour mu mën a nekk faw li ma wax sànq ñu delloo si li nga xam ne moom mooy xel yi fexe ba képp koo xam ne tey ci réew mi nga bokk waruñ xool appartenance politique parce que damay wax ne problème inondation kenn waru ko politiquer moo xam opposition moo xam pouvoir ki nekk pouvoir dafa jàpp ne li mu war a def daf ko war a def ki nekk opposition na jàpp ne aussi ci réew mi la bokk ba a yàq xelu nit ñi wax loo xam ne tey da lay wóor ne boo amee xalaat bu rafet indi ko pour mu saafarawu ki nekk tamit ci opposition bu waxee loo xam ne njëriñ la ka nekk ci pouvoir aussi na jël loolu téye ko pour mu nekk loo xam ne luy jëriñ réew mi la di ànd ñëpp ànd ci ak dal parce que tey fi situation bi toll kenn warul nekk di def lu ñaaw kenn warul sànni xeer kenn warul yàq parce que li ko war a régler ci dal la ànd ak xel mu sell ak bopp boo xam ne lépp dana mën a saafara ba nit ñi ñuy dund mun ci jógee ki a jël responsabilité am xam na ko te responsabilité ku ci nekk ci ñun xam na la la war état moom la ko war xam na ko na ko def ba mu mot sëkk. askan bi la leen war ñoom it muy acteurs yi nañu def la ñu war a def bu ko defee yàlla dimbale ñu lii nii mën na saafara parce que lu mën a nekk la parce que boo demee réew mu mel ni Pays-Bas nga xam ne ay Amsterdam ak ay Rotterdam ak yu mel noonu. boo xoolee dëkk bi ci biir ndox la nekk ñoom fexe nañu ba mën a adapté wu ba dëkk ci ndox mi te amuñu jafe-jafe mais pourquoi pas Sénégal tey voilà Abdou Samad Diouf ñu ngi lay sant di la gërëm